نون والقلم وما يسترون ni nga ko waxee fukki candidat ak ñaar yi nga xam ne ñoo demoon final bind seen bind commission scientifique bi formé benn jury muy lajnatu tahkim ñoom bi ñu nattee bindukaay yi ci maali yi leen joxoon mokkal bu rafet yeeg bind mu rafet mi ak dëppoog rasmul usmaan yi ñett ci génn ñoom la ñuy bëgg a wax ñu seeni ki nga xam ne moo jël troisième mi ngi dëkk si Ziguinchor aw turam mooy Ahmad Mokhtar Lo moo jël troisième dëkk si Ziguinchor Ahmed Mokhtar Lo jógal taxaw Imam Mahmoud Sarr boo ko jox parole Mahmoud Sarr bismillah Tafsir Omar Fall. Tafsir Omar Fall Serigne Djili Mbacké moo ko kado Serigne Djili Mbacké Soulèr. Rosso bi moo ko dem. bu war a jox ko. jërëjëf. jën première mooy li ñuy ñu ngi dëkk région bu Matam aw turam mooy Mouhamad Mansour Sall takbir takbir takbir Mouhamad Mansour Eh, jangan apa-apa. Tak, jangan apa-apa. téye kii ba pare jox ko jox ko boobu ba pare. premier amul deuxième amul troisième. neuf candidats la ñoom itam kon am na aw cent mille francs. Ahmad Tidiane lii. Tidiane lii. sëñ Aliou Mbéy bi nekkee. moo ko jox kado. sëñ Aliou Mbéy wala moo fi teewal. Mouhamad Malal Diallo. di jiite Serigne Touba Wuro Sow bi moo ko war a jox kado Mamadou Malick Diallo am na enveloppe bu cent mille francs mu xam nag Sanoussi Souare Mamadou Sanoussi Souare ñu ngi jóge woon Sédhiou bokkoon ci candidat yi am na enveloppe cent mille francs directeur sànqal sànqal ñoo ko jox kado Abdoulaye Sall Abdoulaye Sall ñu ngi jóge woon Kolda Thierno Sidi Bass moo ko jox karo. Baye An Awal Amin Ba. tur bi moo ko jox karo. Adama Abdal Ba. moom it mu ngi jógee woon Kolda. Sëñ Madiane Diagne. Madiane Diagne. jiitu Torres Faye yu Matam moo ko jox karo. moom it am na àll sànq Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye moom it mu ngi jógee woon si ngeen soog Thierno Arouna Baas moo ko jox kàddoon Arouna Baas. Mouhamed Nasir Ba Thierno Salick Bakhoum Diallo moo ko jox kàddoon Mouhamed Nasir Ba Salick moo ko jox kàddoon moom it am na àll sànq Ismaïla Bari ba muy candidat la woon am na enveloppe cent mille francs mi ngi jóge woon Matam Seydina Aliou moo ko jox keroog candidat bu doon ñëw rek joxoon na ko faatal xam nga trente mille gën di gàdde lu mu nga cent mille ko bokk na ci délégué délégué yi ak cent cinquante mille ñu leen jox kenn ko joxoon na ko faatal du bokk cent cinquante mille ba loolu lépp jàmbaar seen toile karu da karu délégué yi ñoom ñoo def soxna Oumou Thiam mooy dox Serigne Moustapha karo moom it délégué la woon sonn ci liggéey bi la Moustapha Wane nii waaye seen toile moo leen coupé cent cinquante mille ñu leen di jox Habib Dara moom Serigne Moussa Kébé moo ko jox Serigne Mokhtar Kébé. Serigne Ousmane Dia moom it ci délégué la jàmbaar lool. Serigne Khadim Ndiaye moo ko jox dara. Serigne Khadim Ndiaye moo ko jox dara. Serigne Abdoulaye. ñu ngi teewal Ibrahima Fall. Serigne Mbacke moo ko jox dara. Amath Tidiane Fall moom it jàmbaar liggéey bi sëñ Samba Fall maa ko jox kàddu amat nañ la koy Abdoulaye xool bi soxna bi gàtt lool def nañ lu ne garaan nañu garaan yu rëy jox na ku dama ko nekk lopp nañ ci man koo fay dañ koy ñaanal si borom mu bàggee liggéeyam gërëm loolu rek lañ ko mën ñaanal ko suñu borom bi ñuy liggéeyam comme Diarra Fane yàlla bàggee liggéeyam gërëm liggéey bi dañ koy ñaan daf nañ ci jéem ko fekk man ko fekk lu ne defal na ko mais daf na ñëwee lu tax mu ñëw dañoo doon liggéey alxuraan buñ doon ñeneen du ñu ñëw kon ñun ñëwee di ko ndamoo di ko sagoo di ko ñaanal suñu borom sàmm ko. gàttanal ko ba li bëgg am ko ci liggéeyam am ko en lépp moom. yomb na yàlla yàlla ci sama borom. tournel tournel sëñ Fall. liggéey bi ku la ah, jàpp. waaw waaw téye waaw. kenn sama sa moom la ñuy sàngal dama jox kado. wallaay seen waaye Serigne Fall fekk di ko diine mooy joxe kado bi di ko jox doomam. kenn baaba sama sa. ak yaay daal di man borom ñu àndoon. baax na ñu kër. kenn ku ne ñu kër la cent cinq. kon noonu lañ ma jox. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. anta bi ni'mati rabbika bi majnun